askan wi seen i liberté seen i àq ak seen i yelleef ndax askanu Sénégal dañoo am sañ-sañ am information droit à l'information waaye tamit ñi nga xam ne ñooy askanu Sénégal dañoo am droit d'expression seen i àq ak seen i kenn waru leen ko xàññe ñi xam ne ñuy waa ONU sàkku nañu ci état bu Sénégal ñu daal di xel bu baax a baax ñi nga xam ne ñooy taskatu xabaar yi ngir ñu mën a def seen liggéey correctement librement waaye liggéey boo xam ne dafay ànd ak kaaraange yéen kaay gi de la témoin xëy di ñu boo xam ne bu leer lay doon bu leer bu leer ci nag manifestation yi nga xam ne moo fi amoon benn fan ñaari fan ci weeru juin wi nga xam ne moom la ñu génn premier ministre bi di Amadou Ba moom nag nee na danañu ubbi ab enquête ci civil yi nga xam ne ñoo yoroon ay armes ci manifestation yi nga xam ne moom la ñu génn ndax manifestation yi amoon Sénégal fan yi ñu génn dafa amoon ay civil yoo xam ne dañoo yoroon ay armes ñenn ñi di leen di woowee ay nervi ñooñee nag Amadou Ba daan nay wax ne danañu ñu procureur Abdou Karim Diop daan nay wax ci manifestation yi xam ne moo amoon ci Sénégal nee na nag danañu si ubbi am information judiciaire jëmale ko ci ex ci manifestation yi ak njombe yi giraawaali yi nga xam ne moo ci am li am ci yéen kaay gi di Rewmi Quotidien mooy kàddu yu procureur bi ndax nee na ci manifestation yi lu toll si ñetti téeméer ak juróom benn fukk ñoo xam ne teg nañu leen loxo am na lu toll si juróom fukk ak ñett ñoo xam ne ay mineur la ñoo li ñu yàq nag bi ñu ko xayma ñoo ngi ko yàq diggante Guédiawaye Pikine Kër Massar Malika ak Mbao ay milliards yi milliards la dégâts yi ay milliards la yéen kaay gi di enquête xëy di ñu xibara naan ñu ñi nga xam ne ñooy waa secteur privé bi jamono ji nag ñoom ñoo ngi jooy ndax ñoom nee nañu maanaam yëg nañu manifestation yi bu baax a ndax li nga xam ne moom lañ ci yàqule ñoom bi ñu ko xayma waa secteur privé bu Sénégal ay milliards yi milliards yi milliards yi milliards la ñoom béy di añe daat nañuy wax ne maanaam yàq di taal ay entreprise loole du solution di yàq ay entreprise yaa ngi xañ askanu Sénégal ñi nga xam ne ñooy liggéey ci entreprise yooyu maanaam seen emploi yoo xam ne danañu fanweer ak ci ay agence yoo xam ne dañu koo saax te loole nag ay perte milliards yi milliards la ñi nga xam ne ñu waa Auchan ñoom tim liñ yàqule bëri na lool bi ne na am na nag ñu bëri ñoo xam ne ba muy tuule ci chômage technique la ñu jëm yéene kaay gi de Le Quotidien nee na ñi nga xam ne ñuy waa secteur privé bi ñoom nag def nañu seenu bilan ndax nee nañu lu toll ci téeméer ci station d'essence yoo xam ne dañu ko daal di lu toll ci laara tourisme bi demul ceng dikkul mbay laara transport bi bëri loo xam ne yàqu na ci Sonatel bëri na loo xam ne perte nañu ko journal bi nee na ñi nga xam ne ñuy wax Sonatel nag ñoom nee nañu dañuy dem ci ab girawa fukki fan ak juróom jàpp fukki fan ak juróom benn ji ñoo ngi dund ay jafe-jafe bu passé na jafe jafe-jafe yi nga ni moom la ñuy dund Bassirou Diomaye Faye ak Waly am lante nañ ak yoon ñoom ne ñooy liggéey impôt domaine ñoom nag nee nañu bëggoon moom la ñu génn waaye nag ginnaaw bi ñuy waxtaane jàppoon nañ na jàmm dina am de waaye ba léegi daal mbir ma demul cëng dikkul mbay laar loolee moo tax ñi nga xam ne ñooy liggéey impôt domaine fas yéene dem ci grève wal fajiri xëy di ko dëggal yéene kaay gi délibération xëy duñu xibaar naa jàpp gi nga xam ne ñoo ngi koy jàpp ñi farek Ousmane Sonko mbir maa ngi mel ne tulleeg màlle mën la gis nga jàpp gi ba léegi mi ngi wéye bay naa gëy ñu naan naan ko papi yóbbu nañ ko sa kaso ba Olivier Boucal yóbbu nañ ko sa kaso ba journal lu toll si juróom-ñaari téeméer ak fukk ak ñaar ñoo xam ne defeer nañ leen ci parquet bu Ndakaaru ak parquet bu Pikine Guédiawaye yéen kaay gi du l'Observateur xëy diñu xibaar naan ñu manifestation yi nga xam ne moo fi amoon am na lu toll ci fukk ak juróom-ñeenti jigéen ñoo xam ne teg nañu leen loxo journal bi nee na arrestation ab terroriste lu jëm ci wàllum financement étranger yi yoo xam ne bitim réew lay jugee ak lu moo tax na Sénégal jamono ji tiitaange gaa yéen a kaay gi di direct news ca xët mu njëkk mu ñu fekk fa ministre Victorine Ndeye moom nag nee na ci Sénégal dafa mel ni am na ñoo xam ne maanaam bëgguñu jàmm moom Victorine Ndeye nee na Sénégal dafa am ñoo xam ne dafa mel ni ñoom daal dañoo bëgg nit ñi di gën a faatoo ndax nag jamono ji nga xamante ni senegal yi bare bare bare ñoo ngi jooy seeni néew jamono jooje am na ñoo xam ne ñoom dafa mel ni dañoo bëgg néew yokko Victorine Ndeye ci biir journal bii di direct news nee na li nga xam ne moo fi xewoon benn fan ci weeru juin jàpp ñaari fan ci weeru juin duy manifestation ay samba booy ñoo jógoona bëgg nërmeelal Sénégal Sénégal nervi yi nga xam ne nag ñoo ngi koy wax ma ne la gis nga moom Victorine day nee na nervi yooyee amul ay nit ñoo jóg ngir défendre seen réew ndax nag bu dee dafa am ay samba bu yoo xam ne ñoo jóg bëgg a yàq sénégalais yi nga xam ne nag dañoo bëgg réew mi bu la neexee ñu jóg volontaire loole moo am waaye ay nervi amu fee moom Victorine Ndeye nee na gisul benn opposant boo xam ne wala kenn ku bokk ci société civile bi koo xam ne ñaawlu nga kàddu yi nga xam ne Ousmane Sonko yëkkati na ko moom Victorine Ndeye nee na Ousmane Sonko yëkkati na kàddu yoo xam ne jëm ci wàllum xeet ak wàllum waaso te nag loolee dañu ko waroon a ñaawloo yéene kaay gi di bés bi xëy dañu xibaar naan ñu diggante Khalifa Ababacar Sall ak ñi nga xam ne ñuy waa coalition Yewwi Wi Askan Wi nañu communiqué mbirum pensée unique mën na gis nga li xalaat rek kay am wala ñëpp noonu la ñuy xalaate loolee moo war a jeex waa Khalifa Sall ñooy wax ñoom nag nee nañu ñi nga xam ne ñooy waa coalition Yewwi Askan Wi seen communiqué bi amul benn consultation boo xam ne am na na ci ba pare tamit nee na ñi nga xam ne ñu waa coalition Yewwi Askan Wi nañu def yëfu kilifa yëfu mag yéen kaay gii di Walf Fadjri xëy duñu xibaar naan ñu lu jëm ci wàllum liste nationale Yewwi Askan Wi nga xam ne maanaam annulé woon nañ ko ci élection législative yi ba léegi coow la jeexagu la ndax Mamadou Lamine Diallo bu tekki Khalifa Sall la tuuma la yéen kaay gii di na politique économique sociale bi état bu Sénégal teg nag tax na banque am confiance ci réewum Sénégal ndax nee na ak fi réew mi toll mu génn lu toll ci cent quatre-vingt-deux milliards ak lu fegg jox ko réewum Sénégal xaalis ba dina disponible 30 juin bi ñu jëm yéen kaay gi de libération xëy dañu xibaar naan ñu ñi nga xam ne ñuy waawal fa jiree ñoom nag waa wéef dañ leen suspendre ba benn fan ci weeru juillet wi ñu dëg ma la yéen kaay gi di bés bi xëy dañu xibaar naan ñu Xaadim Mbàkke mi nga xam ne moom la ñu tuumaal ne dafa yegg ci lu toll si ñaar fukk ak juróom-ñett ci ay xale yu jigéen yóbbu nañu ko kaso